الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدعني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أن يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم أخرجه في الصحيحين وفي اللفظ إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ñoo ngi ci weeru décembre te weeru décembre saa yu jotee ci àddina bi ci yenn gox ci dëkku lislaam yi dañuy jàpp ne ñoom ñoo ngi ci njeexintalu at dañuy jàpp ne ñoom dañu war a bokk ci ñuy préparer 24 décembre ak 31 décembre léeg-léeg sax nga gis ci ñoo xam ne économiquement dañuy jël ay ginaar yoo xam ne ay waxtu wala ay semaine lañ koy yar ci luñ ko war a jox mu lekk mu naan pour jour 24 décembre ñu mën a feetu léeg-léeg sax nga dem ci yenn dëkk yi wala ci yenn gox yi nga gis ne deeme naa ni fête bi commencé na ñoo ngi takk ci seeni buntu bitig wala ci seeni buntu atelier wala ci garab yi wala ci mbedd yi ci rii yi gën a mag tey ku dugg Dakar li nga gis ñu ngi commencé orné lan la ñuy préparé mooy guddi giñ ne yàlla dafa am doom sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne sunu borom mu ngi wax ci hadisul qudsi yi mu ne doomu aadama daal xaw ma lu ko dal yàlla mooy wax ak doomu aadama doomu aadama xaw ma lu ko dal ñu ne yàlla lu la doomu aadama def mu ne kaddabani ibnu aadam daf maa fenloo man yàlla maa ko bind maa ko sos maay boroomam maa ko moom mu fenloo ma man yàlla mu weddi ma te loolu kat yellul ci doomu aadama warul sama digganteeg moom walam yakun lahu dhalik loolu waru ko lu tax waru ko mooy fi yàlla jaar ak yow fi yàlla jaar ak nun ndeke doomu ndey yi mbokk yi weddi yàlla ak di ko fenloo xeju fi ndax yàlla daf noo defut luñ koy fenloowee def nu koo waxut def nu ko defut sunu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne yellul loolu warul sama digganteeg mbindeef moomu tudd doomu aadama wa satamani doomu aadama bi gën a rëy bi mu def mooy def ma saaga yematul ci fen loo ma waaye def ma saaga man yàlla te walam yakun lahu dhalika loolu yellul doomu aadama man yàlla subhanahu wa taala borom asamaan ak suuf doomu aadama waruma saaga ñu ne waaw yàlla doomu aadama naka la la fen loowee mu ne fa amma takzibuhu iyaaya fa qawluhu laysa yuiduni kama badaani mu ne fenloo gi ma doomu aadama fenloo weddi ma mooy li mu wax ne man yàlla mi ko bind bi mu nekkul dara ma bind ko mu nekk nit ma fas yéene ko reyaat ñu suul ko doomu aadama ñe ñemee taxaw naan bu deewee du dekkiwaat yàlla munu ko defaraat loolu weddi yàlla dëgg la dégg ngeen doomu aadama mu naan ndax su ma deewee damay dekkiwaat ba yàlla naan ko ci quraan awalam yara linsaan anna xalaqnaahu min nutfatin fa ida huwa xasim mubin qaala man yuhya al idama wa hiya ramim xool leen doomu aadama mu taxaw di fëgg dënn naan est ce que bu deewee ba ñu suul ko ba suuf lekk yàppam ak ay yaxam ndax moom doomu aadama boobu dina dekkiwaat muy taxaw naan du dekkiwaat ndax yàlla mën na maa defaraat ba ma nekkaat nit borom bi nee na doomu aadama foofu la ma weddee moom borom bi subhanahu wa taala mu ne waaw xanaa doomu aadama walaysa awalul xalq bi ahwanu alayya min iadatihi li amoon yàqu nga defaraat ko moo gën a yomb wala nga defar lu amagul woon ban moo gën a jafe doomu aadama amul yàlla defar ko mu dund dee doomu aadama ne yàlla munoo maa defaraat moo tax borom bi ne kayfa takfuruna billah yéen nu ngeen di weddee yàlla naka ngeen di amee xel weddi borom bi subhanahu wa taala kayif wa kuntum amwaat yéen da ngeen a dee woon da ngeen a faatu woon kenn ci yéen nekkul woon bindeef hal ata ala al insan hiinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ay at ci ginnaaw rek yéen ñi ci jumaa ji kan la fi 1940 fekk yéen ñi fi 40 fekk kan la fi 30 fekk yéen ñi fi 30 fekk kañ la fi 20 fekk 1900 fekk kan la fekk fi ci jumaa ji kon fekk fi kenn ci ñun ko fan lañ nekkoon fan ñu ngi woon alamul arwah sunu borom subhanahu wa taala duñu préparé ñuy ñëw ba ñu ñëwee nee na dinaa leen fi jële su ma leen fi jëlee ngeen faatu su ngeen demee bàmmeel yi ma dénk leen bàmmeel bis ñëw ma dekkil leen kon doomu aadama bu weddee yàlla réer na ñu ne waaw yàlla ban saaga la la doomu aadama saaga mu ne amma shatmuhu iyaaya fa qawluhu ittaxaza allahu walada allahu akbar saaga bi gën a réy bi ma doomu aadama saaga mooy doomu aadama ñeme taxaw naan man yàlla dama am doom ba mu koy def fête ba mu koy def anniversaire chaque année doomu aadama ñeme feetu bés bi mu wax ne ci la yàlla am doom yàlla mu ne saaga weesuwul loolu xam ngeen lu tax mu nekk saaga dinaa leen jox ñaari misaal yu ndaw rek wala ñett ñeenteelu misaal bi ma indi ko ci ñun kon danañu xam ne saaga bu rëy la ñu wax yàlla xoolal tey ku la fekkoon nga toog mu ne la xalifa général murid yi dafa am doom benn gëx koñ fee mi ngi ngénte foofu te amu fa soxna lan lañ ko wax wala ñu ne la xalifa général laayeen wala tijaan wala ñaseen dafay ngénte place su sangam mais amu fa soxna loolu yow noo koy déggee wala sax boobu dafa sori nan la fekk rek sangu nga ba pare sol nga sa yére jàpp nga yaa ngi jëm juma ñu ne la foo jëm nga ni damay julli ji ñu ne la xanaa yóbboo ci côté juma ji sa papa mooy ngénte foofu te amu fa jabar lan lan la wax loolu lan wax yàlla subhanahu wa taala biñ ko waxee yàlla ñun lan lan def est ce que daf ñoo métti est ce que daf noo naqari déedéet dañ ko jël journée fête di ko feetu guddi ak bëccëg rawatina ci weer wi nu nekk muy décembre léegi 24 ñëw am na ci ñun ñoo xam ne sax danañ def réveillon seen kër dem changer seen cin rey xar wala rey ginaar wala wala jëndi ay nangam ñenn ñi sax danañ defaraat seen kër orné waat indi ay fleur defaraat salon bi soo nee lan la ñu ne la ñu ngi ci fin d'année année ñan la sa année la est-ce que yow yàlla moo ne la sa année la est-ce que yonent bi moo la ko wax ñun sunu année ci lan la dépendre ci lan lañ ko tënk mooy ci hijriya ñun bokkuñu ci shamsiya ñun qamariya lañ bokk sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa ana al ahad man de maay kenn assamad ki ñu jublal mbir yëpp alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad naka la doomu aadama di jànge alquran bi chaque jour chaque jour chaque jour nga koy jàng ba pare nga gëm ne yàlla dafa am doom léeg-léeg sax télévision yi nga xëy dimanche matin nga dégg ñu koy wax ci sa télé wala ci sa rajo nga ñu koy wax te doo yëg dara doo sentir dara yow lu dul bàyyi ko mu continuer di wax jële nañ ci al imam ahmad ci musnadam ci téeréem boobu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa ahad asbara ala ada yasmauhu min allah kenn ci ñun loo muñ muñ muñ muñ borom bi moo la dàq muñ kenn ci ñun gënul mun a muñ yàlla ku mën a muñ yàlla la dàq muñ lan la yàlla muñ mooy lor yi mu dégg lor yi mu dégg moom yàlla lan la dégg nee nañ ko moom yàlla dafa am doom léeg-léeg nga ñëw ci arab yi ñu ne la malaaka yi ay doomu yàlla lañu léeg-léeg nga ñëw ci nasaraan yi ñu ne la isaa doomu yàlla la léeg-léeg nga ñëw ci yahud yi ñu ne la usayru doomu yàlla la te loolu yëpp yàlla nga koy muñ munoon na yëngal asamaan mu daanu sunu kaw ñu dee wala mu yónni géej gi mu ñëw tuuru sunu kaw ñu dee wala mu xarsu suñu ñëm ñu puttax dee waaye moom yàlla def koo muñ moo tax yonent bi nee na kenn dàquta muñ yàlla yàlla dàq muñ ñëpp moo tax mu tudd ci turam yi as-sabuur muñkat bi ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw yàlla lan la muñ mu ne ay lor yu muy dégg an yushraka bihi ñu koy bokkaale guddeeg ba cag léeg-léeg nga gis ku lekk ba suur du sant yàlla mu sant keneen chaque jour ngeen dégg ko chaque jour ngeen dégg cant gu nu organisé gu jëmul ci yàlla dañuy cant kan la ñuy sant doo dégg ñu ne allah mukk diw lu diw def ndax moo bind suuf si ndax moo bind asamaan moo bind weer moo sàkk géej moo ak jant moo defar qamar lu mu def shay deful dara waaye dañ koy sant moom ñu bàyyi ki defoon sunu yonent ne yemuñ ci bokkaale yàlla waaye wa yaj'alu lahu walad dem nañ nag ba utal ko doom te amul soxna te kuñ fi ne am nga doom te amoo soxna dañ laa saaga te moom yàlla kat ci jamono yooyu nit ñi di def loolu yépp wa yuaafihim mu ngi leen may jàmm allahu akbar wa yadfaw anhum mu ngi leen di protéger wa yarzuquhum mu ngi leen di wërsëgal xoolal ci jamono yooyu doomu aadama di mooy yàlla ak di ko wax wax yu bon yooyu yàllaa ngi leen di may jàmm yàllaa ngi leen di wërsëgal yàllaa ngi leen féexal yàllaa ngi leen defal lépp waaye ñëw na ci beneen riwaaya mu ne innahum yajaaluuna lahu walad ñoom day dañ ko sàkkal doom wa yarzuquhum wa yuaafihim terawul mu leen di jox seen wërsëg terawul mu leen di may jàmm guddeeg bëccëg aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا برم سبحانه وتعالى نينا نيني داي نينن يالا دفع ام دوم قال العرب الملائكة بنات الله وقال النصارى عيسى ابن, عيسى ابن الله وقال اليهود أزير ابن الله borom bi subhanahu wa taala nee na arab yi day ci seenug yées ak mbon dañoo jël malaaka yi ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ nasaraan yi ñoom ne isa doomu Maryam doomu yàlla la yahud yi ne Uzayru doomu yàlla la borom bi subhanahu wa taala ne leen laqad ji'tum shay'an idda munkaran aziman indi ngeen lu garaaw wax ngeen lu garaaw gis ngeen ñun rek ñun ñooy dégg ñu ne yàlla am na doom kenn ci ñun du raisonné du yëngatu kenn ci ñun góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ci ñun du dégg ñu ne yàlla am na doom ba mu yëg dara ci xolam waaye xoolal jinne yi jinne bi mu déggee ñu ne yàlla am na doom ñoom jinne yi dañoo yuuxu ba seen gémmiñ yi xotteeku di génne ay étincelle safara lan lañ wax wa annahu taala جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الله أكبر وأنه تعالى لن يوخ ñu ne li wóor tey mbir kawe na taala kawe na foo ko natt wees na ko jaddu rabbina sunu màggaayu boroom yàlla dafa màgg ba foo ko natt wees na ko yàlla dafa sell ba foo ko natt wees na ko kooku màgg sell tol noonu nag jomb na muy am jabar wala muy am doom parce que ku am jabar dangaa manqué ku am doom dangaa manqué ak ku mu mën a doon nag fii may wax ak yéen ku seen xel dem rek kooku dafa manqué bu amee jabar ak doom ku manqué la ak ku mu mën a doon laa wax ku sa xel xalaat rek kooku laay wax kooku dafa manqué kenn doo nga mat muy Allah subhanahu wa taala moo tax ñu ne alkamaalu lahu moom da kamaat keneen ku mu mën a doon ah xoolal boo amee jabar nooy def booy fanaan ak jabar ji xoolal doom ji buy judd nu muy def xoolal doom ji li ci li mu juddoo xoolal yow mi baayam lu la sos xoolal moom lu ko sos sunu boroom nag subhanahu wa taala jomb na loolu moo tax mu ne laqad jiitum shay'an idda indi ngeen lu garaaw wax ngeen lu garaaw li ngeen wax xam ngeen pour ngeen xam danger bi nu mu toll mu ne takaadu samawaatu yatafattarna min asamaan si mu ngi xotteeku min azami haza alqawl wa shiddati qubhihi ci màggaayu ñàngaayu wax jooju waaye ak taruk mbonu wax jooju nu mu garaawee asamaan a ngi xotteeku ndax asamaan kese la xoolal jinne yi sax raisonné nañ waaye asamaan sax raisonné na bi mu déggee nii ne yàlla am na doom moom asamaan munu ko nangu moo tax yàlla nee na asamaan di xotteeku sunu kaw ndax jinne rek la yem ak asamaan yàlla mu ne déedéet wa tansaqul arda suuf mu ngi xar ndax bi mu déggee loolu attanu ko mu ngi xotteeku ñu ne yàlla ndax ñooñu rek la mu ne déedéet wa taxirrul jibaal montagne yaa ngi daanu tasqutu wa tatahaddam mu ngi rat di wàcc lu ko waral mu ne an daaw lirrahmani walada ndax dañ ne yàlla am na doom ah kon ndeke leer na yéen ñi feetu 31 décembre ak 24 xam ngeen ne l'islam santu leen lool ngeen di def képp ku fi jël jour 24 nga rendi ci benn ginaar ngir feetu nga soppi sa cin na nga yëg ne borom bi subhanahu wa taala am naag yow tribunal ci kanamam ndax dañoo saaga yàlla yow nga ñëw di ci feetu dañoo xas yàlla mankeel ko yow mbir mi naqari wala yow nga ñëw di ko feetu kon na wér ci ñun ne loolu suñu yoon nekku ci loolu ñun bokkuñu ci loolu ñun ñu koy wax suñu yoon nekku ci dañu war a sax sakk suñuy nopp borom bi nee na min ajli idaaihim anna lirrahmani azawa jalla walat takaadu samawatu yatafattarna min ci loolu gaa yi wax ne yàlla am na doom asamaanang ci xar di mab suuf di xotteeku montagne yi mab te wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada yàlla nee na jomb naa yellul sellul wérul ku tol ne yàlla muy am doom laa yuslih yëwenul wala yaliqu bi yàlla wu ko moom yàlla wax naa leen ne am doom ku manqué moo koy def jigéen ak góor gi am doom xool leen ni ñuy def ba am doom amma yàlla li annahu rabbu kulli shay'in wa malikihi ixwaani li anna alwalad natijatu sohwa bahima aariya تدفع الذكر إلى إتيان الأنثى فيكون بإذن الله الولد gis ngeen am doom bànneex moo koy indi bànneexu rabu àll moo tax gis nga jamono bi ngay sëy soo sëyee ba pare pour nga mën a normalaat foog nga dem seti foog nga sangu ji set pour nga mën a taxawaat ci kanamu yàlla parce que instant bi ngay sëy góor ak jigéen génn ngeen cadre set génn ngeen kaaduru nite yéen a nga dem ca yëfu bàyyi ma li bàyyi ma yi des yéen a ko bokk ak ñoom fekk ngeen bàyyi ma bu ngeen paree pour ngeen ñëwaat ci péeyu yàlla foog ngeen sangu ji ñu bëgg a wax loolu yàlla yàlla jomb na loolu haasha lillah an yakuna lahu walad yëfu bàyyi ma la futteeku def yaramu neen di uti góor wala jigéen doom doog a ñëw wallahu azza wa jalla munazzahun an musaabahatin li maxluqaatihi wa kayfa yusbihuhum wa huwa xaaliquhum sunu boroom màggam weesu na foofu ñu koy takk moom yàlla ëpp na loolu ñu koy nuróoleeg doomu aadama naka la yàlla di nuróog doomu aadama te moo bind doomu aadama moo amal doomu aadama te amul woon moo amal doomu aadama ci ndox mu salte ci ndox mu doyadi ci ndox mu feesul xottu gerte kon moom yàlla naka lay nuróoweeg nit in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda ku mu mën a doon ku mu mën a doon laa wax ku mu mën a doon ku sa xel dem muy nit wala muy jinne wala muy rab ku mu mën a doon lu mu mën a doon ci keppaaru asamaan si ci kaw suuf si jaamu yàlla nga jaam nga jaam anta abd maxluuq yàlla moo la sàkk ku mu mën a doon nag laa wax ku mu mën a doon mbindeef nga mu doyadi ci kanamu allahu subhanahu wa taala yàlla mooy sa borom in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda خادعا منقادا كائنا من كان كائنا من كان كم من دون ci kanamu yàlla yow jaam nga hatta yonent bi nga may wax kon ma ne jaam la bu fekkee foofu nga bëgg a teere su ma jëlee yonent bi nag kon bàyyi naa ñëpp jaam la yàlla ko wax subhana allazi asra bi abdihi yàlla moo ko ne jaam nga araayta allazi yanha abdan yàlla moo ko ne jaam nga wa annahu lamma qaama abdullah yàlla ne ko jaam nga moo tax mu ne laa tatruuni kama atarati nasara isa bnu maryam innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluhu man jaam laa bu leen ma jay de bu ma kenn jay ni chrétien yi jay jésus man jaam laa na ngeen ma ne jaam allahu akbar na ngeen ma wax jaam innama ana abd bu yonent bi nekkee jaam nag kon kan moo dul jaam bu yonent bi nekkee jaam kon keneen waxi noppi in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda laqad ahsaahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أهلك الكفرة والكافرين اللهم أهلك الكفرة والكافرين ومن والنصارى ومن نصرهم والجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
waaye xel portable yi ku ko ci wax xel portable yi